ah man mbay bi jëm de ah booy bi am na am na fit moom moo tax naka moo tax bàyyi ñes mu ne nga bin nga bëtt ñett yii mooy mooy xasamatu ak kibriyaaw ah, ak ak samia xam nga buñ demee ci buttoon dañ la koy liibar ñun koy ñett xam nga ñun ñun ñun dañ ay ay maanaam ay jondo lañ dañoo dof man jeex ci ba jeex ci yeneen jeex ci yeneen ti ci yeneen yàlla moom jeex ci tiyaan jeex ci bàyyi ñes yow man ngaa jeex si noonu ñooñu dañ nit yow mun ngay nit ah ah ñaata Mouhamad moo xam ah kon boo jeexee ana yëccëris ñaata Ahmed moo xam ñaata Ibrahima moo xam kon foofu moom bii fii moom mënoo fee jeexee demal fa ñuy tuddee boo leen fa xamee boo fekkee doo fa leen doon fa xamee kii kan la <clears throat> mu ne man asamatu mhm. kii kan man kibriyaaw kii kan la man asam ah waaw nag eh ca bitti <laughs> ma ne bitti damaa am fu ma jëm de foo jëm maa nga jëm ci àqu ñu ne ah, booy booy bi yeewu na xam nga ku ko yebal kii muus na fekk na ñun bàyyi ñu dafa ñu ni wama maa taqul laa laa am na gaa yoo xam ne ñu nga ci néeg yoonu leen benn waay moo leen di garde taayoo dikk mu jëm laaxu nga laayu ngay wut mu ne waaw laaxu laa jëm mu ne yow ëcc ca bitti nga ne ko bitti dew ma fenn laa la alak sa man yaa ma tax a jóg man yaa yàlla man da nga xam xame moo tax huwa mii nag huwa ba nga dikkee huwa moom moo tëdd nga jàll nga dikk mu ne foo jëm nga ne ko man laahu mu ne man xalaqa da xam mu ne fekk bàyyi moo ñu yem ne eh, ne ko yaa ma tax a jóg doo ne ko yaa ma tax a jóg rek mu dal mu dal bàyyi nga àgg ci fa nga jëm lii mooy séedu ci xaqaayiq moo tax fële sulukul ibaadaat ci rasulullaay bi nga koy defee sulukul xaqaayiq ci rasul xaq bi ko ñaari rasul yi moom nag Rassoul bii nag mooy transport transporteur bi lay lay transporté ci saa yi moom Rassoul laay bi nga dem jël sariya ba jëfandikoo jaamu yàlla ya mbaax ya teggin sa teggin kooku transporteur bi kenn ko yore boo dikkee ne moom frontière am fa la lay wàcc ah man nag fii la yem xam nga Jibril ba mu ànd ak yonent bi ñi ñu ne ngay dem xam kii Jibril moom xam na xam na fi mu yem ah Jibril na ko ah fii la mu ne ko ah yow kenn ko mu ne ko ah fii la. وامنا الى ولو ما قمنا نتبع وسيما قمنا جينا لول موي سريع واسعير امنا فرونتير سو بغي جال تغل واسعير في ندم نوا لغنا ما نسير الترافور بنا قلم ويدو في آه جها قير نغا دي كنا دي كي ترافور بو رسول عقبي رسول عقبي رقم فوق الفك وايه اكنا قري قم فوق بو نا ngay dik nak mom ngay digarante mom bop nak dula baye nga jall tank set la ba nga xamne xamne ki limay wax deug li ci mom su la bàyyi ma ne ah kon dëgg la fii kay booy bi naa ko bàyyi xuutihuma laahu xuutihuma rëbbu xuutihuma rahman man xàqu laahu lay jëm seetal de dem ba dàq dem ba léegi laahu doo ko kii loo tax loolu wali njëkk yi seen xalxalaatu ko moo tax Seex Tijaan mu ne nihaayatul axtaab mooy bidaayatu ashaabi xutb yi fañ doxoon ba yem foofu la sama àndoo yi commencé xutb yi fu ñu yeman laa ilaha illa allah allah allah allah allah allah seetal ñu ne ilaahi muntahaal wilaaya li an na xool mabda wa nihaaya tudd laahu daal boo ko defee moom daal mooy yemee kaay wilaaya ci ñoom ci ñoom li an na xoo ndax tudd laahu al mabda mooy tàmbalee kaay wali wa nihaaya te mooy seen waay xam nga loolu dégg nga ko ñu wëy ko waaye xam nga ne kooku kon jàll soo tiitaan dikk fekk ne déedéet déedéet du fiire ci kanam bidaayatu boobu bidaay la yow nag nga dikk ci boppam feetal yaa ngi naan laa ilaha illa laa ilaha ñu ne hee qul huwa huwa allahu mooy laaw nga ne nga ne laa ilaha illa huwa laa ilaha illa huwa ah nga ni maa la ko ah laaw nag déedéet laaw laa d'accord huwa nag comment huwa commencé foog ne da ngay da ngay kii huwa foog ne mooy itam am na taalibe nga ne ko laa ilaha illa anta déedéet huwa moo tax boo xamante ni sëriñ bu avancé wu soo toppee ci koom te doo ko romb doo avancé huwa ah, booy bi nga dikk rek anta mooy moo ci nekk anta laa ilaha illa anta nga nekk nga dikk ne yee ne la ah laa laa ilaha illa ana xam nga yaa ba doon xool ca biti yow yaa yàlla junne kii dinaa man la man la man la ñu ne ah gis nga fii moom ñoom itam kër kër wilaaya bi kër wilaaya yu tijaan yi frontière bi jàkk fa lañ nekk yàq nañ fa waaye nag pour dikk dàq naa bii moo taxoon ñu bëri moo tax nag wa ma ana ila basarun mislukum fii nag benn waay mooy ana muy muy insaanu kaamil mu ne man nag duuma dara nit laa comme yéen fii nag bi ndikkee nag gëmee yàlla ci nit bii fii nii moo gën a jëf eh, te te ma anam bàyyi ne ah en tout cas daal déglu ma xal la eh, bul dem ne ci biir biir léegi nag fii nii dem ba am fi maarifa fi nga amee maarifa bu mat sëkk hunaalika man faydu ah kon nag fii la sa faydu pare léegi nag faydu bi nga xam ne xam nga ko faydu nafsu bi nga jël nafsu bi nag dàq nafsu yi benn nafsu bi des fi ah, ah fii moo ñu tax ah. moo tax a jóg asaabu cheikh fii la koy yonent ñoom almaloko sayr wax yi ma mahum war aa alxaras ñoom ca gannaaw xaras léegi ca gannaaw xaras xóoroo may wax ci jaay noonu romb nga ko wa qaala taala ah, léegi nag fekk ñoom tarbiye tarbiyaay sëriñ si ñàkk jëriñu ñàkk jëriñu ñàkk jëriñu ah na ko gën ñàkk jëriñu ah ah léegi nag Seex Tijaan dee bàyyi leen jaamu yàlla yi xam nga bu njëkkoon taalibe dañ ko yóbbu ca tool ya ak seen jëwriñ du gis nit ñi du gis sëriñ bi du julli jàkk ñi loolu nekkoon Cheikh Tidiane dikk na déedéet bàyyi leen leen ànd ak ñoom ca bool ba ca jàkk ja ca wirdo ca wasi wa waaye tëj jéedé nit kenn du ko tëj yàlla nag indil ko feelu ko ne ko xul waxal gaa yi ne man ana kan ban sëriñ xarama mooy araamal siinata laaw yu rafet laaw yu rafetam yi allati yaa xam ne axra ji génne ko lu ibaade yi ñeel ay jaamam wa tayyibaati ak yu teey min risqi yii nga xam ne mooy yu rafet yi mooy oto yu rafet yi dëkkekaay yi yëre yu rafet yi kan moo ko interdit sama jaam yi wottu yi baati bi risque ak ñi nga xamante ne mooy añ ak reer bu nekk ceeb na ceebu penn eh, penn mbay bi ah, ak cocktail neex yi ku ko bëgg a aay sama jaam yi bu ko def tooñ nga ma xul waxal ne yéen lii ngeen gis nii li la sii na amanoo ñoo ko mun de ñu dugg ci daal ci iman ñoo moom yi rafet yi ngi fi gis xanaa xamoon ne kenn benn moomin bi fi nekk doon ci ci ci ci àdduna yàlla tukkal addina <coughs> ah? kon nag yéen la siina amano Seex Tijaan nag moom moo digg aay bi ba mu diggee aay bi moom nag moo dikk nag jël ay taalibam nag dem leen ca daara ja dem leen ca daayira ba dem leen ca eh, école ba dem leen jàngi dem leen ca biro ba dem leen def lépp yéen daal seen tarbiya du tarbiya baadool moo tax tarbiya baadool fii ku ko defloo fii ñu toll déedéet taalib Seex Tijaan kenn du ko def baadool bari nañu dagg ci tarixa bi fekk talib tidiane ya nga di ko maltraité maltraité ba xal bu ngeen xal bu ngeen da ko mal de maltraité sooy maltraité da nga dagg ci tarixa ndax tew daf la ko fa isa taytu fa isa aataytu tariqati faqali bayna bayna ma nashif yow bo joxe baba sama yëf yi sama yëf nga ko jox du sa yëf sama jëf sa yëf du sa yëf sama yëf ko ko jox soko joxe génn ci ndeg bàyyi ko man nag maa koy rek waaye ñu nag dañooy joxe nag muqaddam moom day dikk ñu ne ko yaa fi toog di jot li mu dikk nag luñ ko jox mu daaj ci poosam déedéet du bàyyi mu dem rek bàyyil mu dem li nga wax mu dem <laughs> bàyyil mu dem bàyyil mu dem de si <laughs> fii am taxawal ari ari kaay bàyyil mu dem bàyyil mu dem bàyyil mu dem tare taalibe tijaan bàyyi mu bàyyi mu dem foo ko tax a jóg yow taxu ko jóg kon nag lii nii moo lay xamal ne aay bi moo lay xamal al alquran moo lay xamal kuy asaabu cheikh ak kurut asaabu cheikh bilaa xalwatin rabaa war a baw bi xalwatin moom dafa tarbi ay gaayam saa ñu dugg xalwa war a baw sëriñ si ñoom dañoo tarbi seen taalibe bi xalwat ñu dugg xalwa fa sattaana maa bay dal yee seen di malxandu ah, waaye ñaari marabu yi ñoo ut ni ñuy yareet ay taalibe ah kon nag kii moom ñun mooy suñu sëriñ benn taalibe na àll am na bu ko matee lii billaahi laa mooy mooy xaraasimitum xaraasimit Cheikh Cheikh Baye Niass rek nga dikk la Cheikh Tijaan waxoon kiif kiif moo ca teg tànkam te ku ko weddi na ma indi soo faxee ne waxee na nga xam ne am na ko ci comme ci moromam nga indi seetal léegi ana kan moo am tawhid wilaaya mas ngaa jàng benn ngaa jàng benn téere nga gis ci tawhid wilaaya ah xabaxa law unaasan xar yaraw kay rek saani ku fi gis ku ku ku fi gis ku yow kooka yaa bon kon moom gisut bi ah fa wallahi maa ngi koy giñ ci man ibrahima nis laa tul fii li ahmad sanin gisuma fi ñaareel fa ahmadu fardun la jawharun la lan yu qasama ndax kon am na fi keneen léegi nag lii mooy problème ñun nag dañuy wéetalee wéetaay ba ne yàlla rek fa nekk na bëgg fee am benn wéet benn wéetaay yi léegi nag soo xamul ñaari wéetaay yi nag ah fii moom il faut nga am ko la gunge de ah ah dégg nga nag